réew mi 24 yi président Ousmane Sonko de li mu war a wax lépp wax na ko war a def lépp def na ko ku déglu mboolem discours bi rawatina discours démbam bi ca nemmeeku dóor ko ak nga xam ne boo boolee français bi ak wolof bi def na deux de temps li war a wax lépp wax na te nga yëg ne kii wax. góor yàlla dëggantaan kii wax ku am dignité la kii wax ku mën a muñ la kii wax ku gëm yàlla la kii wax ku pare la ngir sacrifier ak dundam ngir aw askan mbokk yi xanaa xamu leen ne mooy jàng alxuraan mbooleem natt yi nga xam ne yàlla dafa ko doon teg ay yonantam di ko teg ay nitam yu baax natt yooyu yëpp tey dajee na ci président Ousmane yonent yi natt yi yàlla di teg bokk na ca kàddu yu ñaaw yoo xam ne seeni nit dañ koy wax ci Ousmane Sonko mu tuur ci loolu mooy ki nga xam ne moom lañ gën a yëkkati kàddu yu ñaaw jëmee ko ci moom te ña koy def dañ leen di fayu xaalis ak kàddu rek moo tax ñu def euh, tëj prison tëj kaso tey ñi ngi koy def aw nit ak moom Ousmane te loolu ay yonent dund lañu mel noonu mel ni ki yonent yàlla Yuusuf rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una bi ilay naka noonu persécuté ay yonent ak di leen dàq ak di leen génne loolu tey Ousmane Sonko dund lu mel noonu ci fa mu doon liggéeyee tey mi ngi koy dund ci biir réew mi ci Sénégal naka noonu persécuté ay nit yoo xam ne ñoom la àndal wala koo xam ne sax da nga xamanteeg moom wala sax nag nga laalanteeg moom ñu pare ngir éliminer la ci sa liggéey éliminer la ci sa ay privilèges éliminer la ci lépp waaye sax jël sa bakkan yóbbu la prison tey loolu lépp président Ousmane Sonko ñu te yooyu yëpp yàlla nettali na ko ci alquran mu nekk ay mbir yoo xamante ni si moom la daan وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا إنو لبو لكو كجارا موي أسكنو سيدكا وحنا بطود دينيتي مومي وحنا بطود لي ماي دفني يا كارنا بوما تي داجيك سما بروم ألك لما باري باري أي نوم دي من نما جا تبال الجنة نح لغي سما أو أسكن موما تقومي بقي نح بريزدان عثمان سونكو دانيو ورا جنة نيكو ndax président Ousmane Sonko dañoo war a gën a gëm yàlla ndax président Ousmane Sonko dañoo war a gën a gore mbokk yi euh, mbokk yi man mii di wax ak yéen tey tey jii nii bi ma jullee jiite ci jàkka ji may jiite ba pare wax naa ne nañu ñaanal président Ousmane Sonko dama ko wax saraxatan ba ko waxee alhamdulilah ñoom fa fekk ñëpp yëg-yëg bi am man na maa wax ne yëg-yëg bu ko raw sax moom lañu am président Ousmane bokk yi ñaan yi nag baax na lool waaye am na taxawaay yu am solo yoo xam ne des mbokk yi président Ousmane Sonko ju ñu na ne ñi ngi xeex ay mbir boobaak léegi yàgg na lool waaye ñu dem ba ay weer yu néew dese ñu ci ñu soppi sunum réew defaraat sunum réew euh, mu mel ni ki daa am luy commencé dugg askan yu commencé dugg ndaw ñi ci ak yoon njax ci ak tiitalaate ak nàngam fekk ñi ngi àgg ci suñu objectif ngir atteindre te wax na ne day lii nii bu ñu ko ñàkkee mën nañoo toogaat nangami at téeméeri at ak juróom fukk doo ko amaat lu mel nii mbokk yi loolu junj bu am solo la boo xam ne waris na koo bàyyi xel mbokk yi na koo bàyyi léegi nag man li ma jàpp mooy président Ousmane Sonko démb ci ay kàddu wax na ne altine ku mën na ñëw Ndakaaru say bu mu Ndakaaru jàpp naa ne képp koo xam ne laysa ala al ama xaraj wala ala al wala ala araj ñi nga xam ne yàlla jox na leen gànt ci ci feebar ko xam ne dafa am ay empêchement yoo xam ne sax nangam ak nangam yu ñu nangu la saraan jàpp naa ne ku amul loolu rek war ngaa mën a jóg ngir teew ci li nga xam ne moom mooy Dakar ci ñaari projet yi nga xam ne ay projet Tappale la ñenn ñu ci nekk nag ñoom ñooy a jël sa oto mu daw nga mën a ànd nga ànd ak ñoom waaye jàpp naa ne mbir yi dafa toll koo xam ne ay ci individuelle la ndax mbokk yi ñu nu faat ndax dañ leen a gën ñi nga xam ne dañ leen a tëj ci kaso yi ndax dañ leen a ñi nga xam dañ leen a yàqal seen liggéey ndax dañ leen a gën ndax président Ousmane Sonko li muy daj nii nga xam ne tey bu fekkoon dafa nangoo négocier nangoo nangam nangoo nangam loolu lépp toor bi muy daj mën naa lakk waaye mbokk yi askanu Sénégal ak réew mi defaru jaram man de wax dëgg yàlla euh, jàpp naa ne lii daal ab xalaat la président Ousmane Sonko daal nee a ñëw Dakar Ndakaaru nag ku kenn du tere kenn nga nekk nag ñooy xam nañuy organiser wu am na ñuy demee waaye jàpp naa ne président Ousmane Sonko moom tey bàyyi na boppam yàlla waaye bàyyi na boppam askanu Sénégal ñaan yi ñu joxe yépp am solo te japp na ni ñaan yi fu ñu aksi mo tax mu aksi ñu aksi waye japp na ni yit nak am taxaway nak am na solo bu baaxa baax nak ndax yonent bi salaay sallam dafa daan am taxaway waye dafa daan ñaan mbokk yi daal yi moo doon kaddu yi président Ousmane Sonko daal bu kenn waxati nan daa war a wax nan daa war a wax nangam li mu war a wax lépp wax na ko léegi responsabilité individuelle la nag léegi kenn ku ci nekk yaa ko wax sa bopp wasalaamaaleykum